léegi dana ñëw na ma yaay yaay ñii ñi ngi ñëw ma génnee comme man première attaque bi dama demoon liggéey sénégalaise de l'automobile laa nekk foofu laay liggéeyee fekk ma fi woon xamoon empleur bi mais kër gi ñoo ma doon def siñ seen cour bi comme quoi naa dugaat dama nekk en danger grand bi mu ne ma fii doon na fi mës a am jàmm ñi ngi ñëw def leen lu bon après ci laa daw tëj buntu derrière bi tëj buntu devant bi.

il paraît que nous avons parce qu'il est le plus costaud le plus sadique Il moom du arrière du reculer du reculer barre de fer ak mool ma génn Je suis gi la gi fi a am nous de gi ñun ñëpp ñu daw ci cuisine bi ba mu défoncé buntu ci la a bi di di doon sama sama téléphone bu ak sama pochette ma bàyyi woon xaalis mais ñun comme mucc nañ si rek dañuy wax alhamdulilah parce que man sama doom bi de de nature dafa mën jooy mais jour boobu yàlla moo si teg loxoom parce que bu déggoon biir rek day défoncé waañ waaw dañuy ñaawlu euh, li xew fii tey euh, te nekkul guléet euh, mais tey li fi xew dafa dafa jéggi dayoo parce que li ñu gis mooy ay jigéen yu nekk ci njàqare ay xale Yunex, nekk TEPOR, Ndiakhare euh, euh, te euh, ak def ay effort pour tabax Nous ni mel ñu gisoon que fierté la sénégalais yoo xam beaucoup de bokk dëkk bi fait fi di fi di fi bëgg sénégalais

Euh, euh, suñu mbokk yi nekk dugaat ñoom gisee gisewuñu ko noonu mais li ñu leen di euh, ñaan rek mooy violence bi ñu bàyyi ko te toog waxtaan xool nan lañu mën a liggéey ak ñoom lan la leen port mën a defal ba nga xam ne ku nekk dina ci gis sa bopp parce que comme bi ñu duggee fii xel xalaatul ne Eh, ñii fi dëkk dinañ fi jóge gannaaw ñii fi dëkk duñ fi jóge te ñii fi dëkk yoon ànd na ak ñoom li gën a jàppandi ci ñoom ak ci ñun mooy ñu toog xam ne ay dëkkandoo lañu fi mu nekk nii ay dëkkandoo tey lañu ay dëkkandoo ëllëg lañu comme ay nitu jàmm lañu nañu doxal jàmm ñi nga xam ne nag frange bu ndaw la ci biir ñu tiye leen parce que sécurité bu amee nit ki Euh, bu demee ba ba ba sës xamuloo lan lay jur euh, euh, def nañ ko benn yoon defaat ko ñaari yoon buñ ko bu continuer nii musiba lay jur te kenn bëggul musiba